léegi nag mbokk yi ci li jëm ci mayi xelum yàlla bëgguma ngeen umpale ci dara xam ngeen ne bi ngeen xamagul woon yàlla xërëm yi mënula wax ñoo leen jiitaloon di leen wommat moo tax ma leen di xamal lii ku xelum yàlla solu du wax ne yéesu dafa araam te it kenn mënula wax ne yéesu mooy borom bi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 ndax ñépp am mayu wéral ay jàngoro ndax ñéppay wax ay làkk ndax ñépp leen di firi waaye fonk leen may yi gën léegi nag moo woon leen yoon wi gën lépp